ni mu baaxe ak li yàlla def ci moom koo xam ni yaa ko nekkal ci kaw suuf kooka nee na lu mu mën a wax ci moom wàññi ci lu baax wàññi laay def waaye mënuma koo yokk nee na lu mu wax rekk nee na lu ko ëpp mi ngi ci aboo nee na nag daa sëñ ko lépp nee na daaw am fu mu war a waaye koo xam ni Alaaji lu Mbàkke mu baax nii ñu ko bindoon leetar mu ñëw fii senegal leetar boobee saña ko rek ku saña teppi ku mel noonu kay loo wax ci moom bàyyi nga ci dara kon seen njëriñul bopp rek laa ciy wut nee na ni mu waxoon bu suba na ngeen ci góorgóorlu nee na loolu lii ma ngi koy feddali de nee na dafa wax ni xam naa ni ku mel ni sëñ Abo jox ko loxo dina jafe ci bis bu mel ni suba waaye ku ko jege rek dëkk say loxo ci fi mu ne ci wet gam féete ñaan fa say soxla sëriñ bi nee na am nañ yaakaar ci ne ñaan googi yàlla daal dana ko def bu dul lu dul noona nee na lu dul noona daal laa xam ne ku ko fa ñaan bu béye boo nga sàkk beneen pexe waaye googee ñaan moom du nangu lu baax rek lañ lañ fa war a ñaan bu suba yàlla nangu ko kon nag nee na loolu yi mu waxoon daal mu ngi leen koy fàttaliwaat nee na bi mu ko waxee léegi nag yàgg na nee na manees na ko fee fàtte nee na moo tax mu di ko fàttaliwaat tey biñ ñee suba la màggal gi màggal gi itam màggal niñ koy defee mooy yar ak teggin ak def lu baax waaye màggal dee su ko def ci jallaw jallaw yi rekk jallaw ju amul àpp topp kër yi ak naaj yi di waaxuy dem di wëndeelu rekk nee na bu ko ci kenn def nit day dal na teg ci ak màggal di jaamu yàlla boole ci ba bis bi jeex sëriñ bi nee na loolu lii daal bu subaa na ko ñëpp maase def dal rekk loolu mooy tax li nga bëgg ci màggal gi nga am ko nee na mi ngi leen koy fàttali itam sëriñ bi nee na waaye sëriñ Fall du nu ko neex rek mel de na ngeen mel noo xam ni da ngay mel noo xam ni ku la gis xam ni yow mii waayoo nga sëriñ Fallu ci ay wax ak i jëf jërë ngeen jëf nee na yàlla nañu fekk lii ba mu jàll di ko fekkee ay yooni yooni yooni yoon bu ëllëgee nag lépp ñaan yàlla na ko nu ko it bu baax bu subaa sëriñ Cheikh Mbacke sëriñ Cheikh Mbacke bu sëriñ Abdou borom dër bi mu wàcc ci liggéey ba ki démb rek sëriñ bi nee na ñëpp nañ commencé ñaanal yàlla yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem jërë ngeen jëf waay toll rek na ànd dal te fas leen ci li ngeen bëgg lépp tey amin benn lox amin benn lox amin tey fas amin Gülgül. Yalla nga yàgg yalla nga wér parce que yalla nga yegg yalla nga yegg ma kañ ca bàkk Seex Abdul Karim makaarimul axlaaxi mbakke anu yem ma jéem a kañ te bàkk Seex Abdul Karim makaarimul axlaaxi Mbàkke yaa nu yem ma jéem a kañ te bàkk Seex Abdul Karim makaarimul axlaaxi Mbàkke yaa nu yem sëriñ la dib sëriñ bu rafet ji ko waral mu bare ay xame doomi sëriñ la dib sëriñ bu yaarame rafet ji waral mu bare ay xame yey dajaloo ñam yey jalaañoo day dagan tey tegaloo la nangu fay dajaloo ñam yey jalaañoo day dagan dongom ya mokku lool di leeral seen kanam kun fataaju ñam du ko xam dongoom ya mokk lool di leeral seen kanam ba kun fataaju ñam du ko xam Cheikh Abdul Karim Sëriñ Abdul Karim def leen nii ñu màggal borom makaarimal axlaaq Tuuba di am teraanga teddu lool